mbokk yi nuyu nañ leen dal leen ak jàmm ci seen revue d'actualité tey le 14 juin 2021 li gën a fës ñu fas yéene ko waxtaani bokk na ci euh, coowal pelouse stade la Dior bu Thiès ba Sadio Mané yëkkatee ay kàddoom nag jàppale ni ba tey ñu ngi koy tontu te li ni mel sénégalais yi rafetlu ñu ko euh, benn yoon bu weesoo loolu itam ñu wax ci coupe du monde bi soccer suñu gaynde yi ñu ngi koy waajal ak regroupement gi nga xam dinañ ko tàmbali ni ko tey d'Afrique des nations ci wàllu mini foot ñu koy waajal weerub juillet bi di ñëw Sénégal ak Nigeria moo nekk affiche match d'ouverture bi ci wàllum handball suñu gaynde jigéen ñi ña nga ca Cameroun ci li nga xamante moo di Coupe d'Afrique des Nations démb nag Tunisie da leen daal di dóor ñu ñàkk première place su groupe A bi natation ak jeux olympiques yi jàppale ni Sénégal dina am ñu ko fay teewal boxe ak ñaareeli bëccëg li nga xamante moo di championnat national bi ma Mamadou Fall moo daal di am ci kaw Assane Faye par kaw ci njeexitalu match Sénégal ak Zambie Sadio Mané yëkkati na fi woon ay kaddu daal di ñaawlu anamu pelouse stade Lat Dior bu Thiès daal di wax xamle ni kon dafa catastrophique te jàpp na ni askanu Sénégal war naa am lu gën lii. ci noonee njiitalu fédération sénégalaise de football di Augustin Senghor moom it daal di def ab sortie di xamle ni kon fii du Chelsea wala sax du Liverpool stade Lat Dior bu Thiès gën na ay stade yoo xamante ñi ngi nekk fii ci biir Afrique li ni mel juróon coow waaye ba tey coow li fayul ndax ki nga xamante moom la lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram fii ci Sénégal muy Matar Ba daal dinay tontu Sadio Mané daal di xam le ni kon fii Afrique la mënuñoo am condition yi nga xamante moom la ñuy am ca Manchester wala Liverpool muy ay sortie yoo xamante nag sénégalais ñaawlu nañ ko bu baax a baax ndax jàpp nañ ni kon lépp lu jëm ci wàllum infrastructure fii ci Sénégal fullaalu ñu ko bu baax moo tax saa su nekk ñuy nekk ci ay jafe-jafe ci lu jëm euh, ci suñu wàllum euh, tàggat yaram jàpp nañ euh, yi nga xamante njiital fédération ak ministère des sports daal dinañ koy def a jamono gi mooy ñu liggéey ba mbir yi gën a mucc ayib gannaaw ba ñu jëlee li nga xamante moo di Coupe d'Afrique des Nations bi ñu amaloon ko eh, fii ci diwaanub eh, sali daanaka nag ñoom seeni vacances yàggul dara muy gaynde bi soccer yi nga xamante ni que tey ji la ñuy daal di tàmbali regroupement bi ñeel wàccaay Coupe du Monde 2021 ñu jàpp ko du 19 au 29 août ci diwaanub eh, Russie jàppale ni kon sélectionneur bi di omar Ngalla Sylla ak staffam la ñu bëgg mooy ñu def participation bu mucc ayib ci boobule compétition ba tax na jamono gi daal dinay convoqué tolloog ñaar fukki joueur ngir ñu bokk ci regroupement bi dañuy amal fofu ci complexe Awa Plaza ci jàmmalaay régime internat nak lay doon du 14 au 17 juin ñi ngi japp ni sax suñu gaynde yi bu wéso euh, période bobu dinañ daldi voyager dem ci Doha daldi bokku ci benn tournoi amical international bu ñu japp du 19 au 27 juin ñu wax lu jëm ci ñaareelu édition li nga xamanté modi Coupe d'Afrique des Nations ci walum mini foot ñu fas ko amal ci réew nigeria du 8 au 17 juillet bi di ñëw gannaaw ba ñu défé tirage au sort bi nak jàppale ni ni euh, Sénégal ma nga groupe A bi ak pays organisateur bi euh, di Nigeria, Maroc ak Djibouti ñom lay daldi euh, Sénégal moom moo leen daal éliminer éliminé woon ci li nga xamanté édition bu mujj bi jàppale ni équipe nationale du Sénégal nak mom dafa daldi di perdre li nga xamanté modi finale bi ci kanamu Côte d'Ivoire président confédération africaine ci walu mini foot di Ashraf Salha daldi nay xam ni kon juroomi équipe yi nga xamanté ñom ñoo gëna wone ci tournoi bobu nonu ñom ñoy daldi représenter Afrique ci coupe du monde mini foot ñu fas ko amal atum 2022 ci Ukraine ñu wax ci lu jëm Coupe d'Afrique des Nations ci wàllum handball jàppale ne suñu gaynde yi jigéen yi ñoom qualifié nañ ci quart de finale 24e édition bi ba pare ni ki démb nag mu nekkoon seen match de poule bu mujj Tunisie daf leen daal Dor 30 à 13 mu nekk kon défaite boo xamante moo Sénégal daal di ñàkk li nga de te première place bu groupe A bi ca conférence de presse après match bi nag kii di sélectionneur bi euh, Frédéric Boujan moom daal di nay wax ci li nga xamante moo défaite boobu mu jàpp ni ci bile match dafa daal di jëloon comme option daal di bàyyi ay joueuses am ñu daal di euh, noppaliku muy xamle ni itam am na lu tollook ñeenti joueuses yoo xamante euh, dañoo daal di jóge ci championnat local bi te loolu war nañ koo rafetlu euh, bu baax a baax ndax joueuses yooyu daal di nañ démb bokk ci li nga xamante moo di jongante bi défaite bi nag dafay daal di tax Sénégal mënees tombé ci quart de finale bi ci ay équipe yu ci mel ni RD Congo li ni mel day daal di tax mu mën a éviter beneen ponkal ci mi muy Angola 15 ñeent ñi nga xamanté ñom ñoy bokku ci demi-finale yi ñoy daal di représenter Afrique li ñam xam coupe du monde ba ñu fas ko amal ci Espagne ñaar ba fukki fan ak ñeent ci weeru décembre bi di ñëw ñu wax ci lu jëm ci jeux olympiques yi ñu wara tambali le 23 juillet ak euh, wàllum natation nageur sénégalais di Steven Aimable ak Jeanne Boubian ñom ñoo fas représenter Sénégal kon ci bobu le discipline ki xamlé ne li ni mel moy Thierno Diouf nek directeur technique de la fédération sénégalaise kon ci bobu le discipline ki xamlé ne li ni mel moy Thierno Diouf nek directeur technique de la fédération sénégalaise de natation et de sauvetage dal dinañ xam le kon ñom ñaari ndaw yoy dal dinañ jégué minima waaye buñu sétlo ay performance yi nga xamanté mom lañu dal di réaliser li ni mel motax fédération dal di leen tànn ngeen ñu dal di représenté donte mi nga xam kon fédération de natation précisé goul épreuve yi nga xamanté ñom ñaari nageur yoy dinañ ci bokku ci jeux olympiques ni ñu fas le 23 juillet dal di koy le 8 août fofu ci diwaanu euh, Tokyo jàppale ni bu wéso ñaari nageur yoy yeneen juroomi athlète sénégalais daal dinañ am sen ticket ngeen bokk bokk ci jongante bi bokk na ci pongiste bi nga xamante mooy Ibrahima Diaw eh, ci wàllum eh, lutte Adama Diatta moo fi représenté Sénégal Jean Paul Bori ci wàllum eh, kayak ki nga xamante moo di Manick Ndiaye ci wàllum judo Ndeye Binta Diong escrime Youssouf Fall Javelo ak Ibrahima Sey taekwondo ñoom it daal dinañ am seeni qualification ñeel Jeux olympiques yi ñu jeexalee revue d'actu bi ak lu jëm ci wàllum boxe ñaareeli bëccëg li nga xam te moo di championnat national bi ñu ngi ko doon amal niki weekend bi Mamadou Fall mi bàyyeekoo ci boxing club Jacques Chirac moo daal di am ndam ci kaw Assane Faye mi bàyyeekoo Cœur Champions moom nag daanaka ñeenti minutes dong la ñu daal di jongante mu daal di yóbbu adversaire am bi par kawo ñu teelu ay kàddoom. moom mooy fédération bu mag bi yor boxe bi. ñoom dañ ma xool jël ñoo doon paasal fi ma doon dem yëpp ñoo doon invité Sénégal doon mu yóbbu dama doon dem ci turu Sénégal mais ñoom ñoo doon paasal avion yóbbu ma si hôtel 4 étoiles boole ma ak ay course yu mag ma def camp d'entraînement pour ñu ne man damay qualifié olympique parce que dañoon par A man damay dem olympique